il faut me l'éral d'abord dara parce que quand nga Sénégal bay wax. Hmm. nit ni dañuy wax def dara ak deful dara loolu discussion bi. ndax def dara mbaa deful dara. Hmm. loolu du discussion. mono jël douze ans ñu jox la texte say loxo ay dizaines et des dizaines de milliards peuple bi jox lako ko sa defoo dara kooku am ku fi jaar ku fi gën nasax buñ jëlee ay dizaines et dizaines de milliards teg sa loxo. Mhm. foog nga def dara. ku jox dépense faaw nga togg. day neex mbaa du neex. voilà question bi lan la mooy bu ñu seetee liñ la jox ak li nga defar ndax investissement bi ak résultat yi méngoo nañu. loolu lañ lay laaj ndax yow option yi nga jël moo doon option yi gën a baax ou bien option yu nga jël dugal ci xaalisu réew mi am na option yoo xam ne ñoo ko gënoon fuuf bu fa xaalisu réew mi jëfoon tey fële réew mi di gën a jëme kanam. bu ma la laajoon lool ci Macky Sall koom-koomu réew mi ah. loo may tontu. loolu dafa yomb il nga am objectif d'abord. nañ jël li nga xam ni moom lañuy ñuy taggee Macky Sall benn terre bi terre bi pour lan la lan mooy njëriñam ci réew yombal dem geeg dëkk gi nee na wàññi embouteillage nee nañ mobilité urbaine du du réew mi waaw euh, réew mi sooy na trop la wax aussi bi moom du réew mi terre, mais il y a une région Dakar. Il y a une région de Dakar. Nous avons objectif de faciliter la mobilité urbaine. C'est ce que nous avons 1 1000 milliards, 700, etc. 800. Mais

lo xamni day quadriller Dakar nu gëne noonu ba transport public bi dina egg fo xamni ni nit ñi dinañ bayyi auto yi parce bo amé transport public bu baax doo toppatoo auto est-ce que du lolo tax mu def BRT. dinañ BRT bi lolo wane na ni investissement boobu résultat yañ ci doon xaar résultat yi nekk loolu la tubaab di tuddee un mauvais investissement xëy na am na ay nit yu mu arrangé mais nit ñooñu boo leen compter par rapport à la population intéressée bariwuñu ci majorité lañu war a jouer toujours waaw bariwuñu waaw ñaareel bi ñu jël route <coughs> route yi construire am na route yoo xam ni ñëpp ni ça a été très utile autoroute bi mm-hmm. autoroute bi nekk na loo xam utile la évidemment à na ay rëkk-rëkk ci contrat de base bi après lañ koy jéem a dabb mm-hmm. ndax contrat bi wone na ni autoroute bi niñ ko négocier du négociation bu baax et que essentiel xaalis bi fa nar a narul des ci réew mi donc doyoon na war leneen yi li ñuy wax mooy affaire hôpitaux yi ñu construire defar nañ fi hôpitaux de telle génération defar nañ et infrastructure bu ressources humaines humaine du infrastructure tabax aujourd'hui dans n'importe quelle institut hospitalière vous accueil bi rek nga daw ak kuñ koy imputé keneen dégg nga waa SAMES li wax ci mbirum aujourd'hui personnel à condition de travail Na dafa metti kon nag xëy def ay infrastructure baax mais infrastructure yo xam amul ay ressources humaines yo xam ne mën régler problème bi li muy indi gis nañ ko foo egg dem fa ñu ne lii dafa paan hôpitaux yi foo dugg ñu ne lii dafa paan kon nag foo itam choisir ñu ay investissement boo jëlee jàng bi man dama leen di reetaan sax mun mun leen déggee ci mbirum jàng bi en tant que ancien ministre de l'éducation ah, dama leen di reetaan ndax li tax ma leen di reetaan yow am nga plus de 2 millions d'enfants yo xamni amuñu classe bu ñu jàngi plus de 2 millions yu nekk yi biti amuñu fuñu ñu am nga lool ñi nekk ci classe yi di jang li jang lu tuuti la ndax bo jëlé téeméeru gune tay yu nekk école primaire xeyna 40 ñoo ci mën li ñuy jàngale 60 yi mënuñu ko yow boo amee yooyu problème ngeen yow lan mooy sa priorité abri provisoire mooy sa priorité ma ne mais est-ce que ñii dañoo dof am lan naka la abri provisoire mën a nekk sa priorité alors que yow yaa ngi deux millions gosses yoo xam ne war nga leen dugal école parce que vingt e siècle xalé bo xam mënul lire mënul ki fu mu jëm fan la jëm yo lolu du sa xalat ngay wax abri provisoire fi nek la bëgg a abri provisoire man jàngale na ci abri provisoire ba tay dafa tay jangal du problème comme niñ ko défé problème ño abri provisoire man a na ci ba tay gouvernement mënul wax priorité abri provisoire priorité moy na xalé yépp dugg école

dafa am ay affaire yu bari yoo xam ni dafa jafe nga liggéey boo bëggee faj feebar li ngay commencé mooy li tubaab di wax diagnostic sa ñun bu ñu seetloo ñun symptômes yi moo ñu gën a intéressé ko cause yi maanaam bopp buy metti mbaa si bureau yu kenn xamul yooyu lañuy toppatoo mais duñu seet li indi bopp buy metti ak li indi si bureau